bisimilah mbokk internet yi dal leen ak jàmm Serigne Saliou Samb bëgg néegu ba soxna Aïda Diallo ji mel na ni wàccu way bi mu doon xaar ñu wàccee ko ba mu demee ca kër xalif général ba mujj koo am waaw Serigne Saliou Samb dañ koy joxoñ baaraamu tuuma ci ne dafa doon enregistré xalif général des mourides ci lu yoon naka mel na ni dañu ko toroxal ndax wàccu way ba mu doon xaar ñu wàccee ko mel na ni ne dafa ñëwoon ci kër xalif général des mourides ngir indil ko yóbbanteeg sëriñam ba di soxna Aïda Diallo nekk ay xar yu mu ko joxoon ngir mu joxal ko ko ki nga xamante ne nii moom mooy xalif général de Mouride di Serigne Mountakha Mbacké waaye lam fa jëlee bokkul ak lam fa doon yaakaar bis boobu nag ñu bari jàpp nañ ne ki nga xamante ne moom mooy Serigne Saliou Samb dootu ko fàtteeti ci àddunaam li ko waral mooy yaakaar gu mu amoon ci teg bët xalif général de Mouride mu mujj tas ña wër xalif ba ñoom ñoo mujj bañ ki nga xamante ne mooy Serigne Saliou Samb gisee ak xalif général de Mouride di Serigne ca barab ba ànd kook ab délégation bu yaatu ak ay xar yu mag te bari ci turu njiital cantaakon yi wala boog ma ne kenn ci njiital cantaakon yi di soxna Ayda Jàllo soxnaab sëriñ Cheikh Béthio Thioune mawoon bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot nag ki nga xamante ne nii moom moo jiite woon délégation bi di sëriñ Saliou Samb kenn ci jege ñaaleeb xalifaab Cheikh Ahmadou Bamba ci jamono ji moo bañ ba tëdd ci suuf ne sëriñ Saliou Samb du yegg ci xalif général des mourides muy taw mbaa muy naaj waaw kay jërë ngeen jëf Tactic mi